ñetti candidat la yu xam ne même sort bi moo leen dajale ndax naka ñoom ñëpp dañu leen éliminé ci présidentielle gu atub 2024 ci étape parrainage yi Abdourahmane Diouf di leaderu coalition Abdourahmane 2024 Aminata Touré leader Mimi 2024 ak Bougane Gueye Dany di leader coalition Gëm sa bopp jàpp ne teguñu ko ci yoon. et ce qu'ils nous ont fait là c'est un coup d'état. ni cas bi demee mooy. gis ñoo xam ne seen taxawaay wér na mu wóor la ne candidat bii di Amadou Ba xañul ci moom guddi xañul ci moom bëccëg. Bougane Gueye Dany moom di joxoñ baaram tuuma njiitu réew mi mu jàpp ne rek loxo Macky mu ngi ci ginnaaw invalidation candidature ndax position ya mu amoon ci mbirum ñetteelu mandat bi. man xam naa ne li ñu ma baalul bokk na ci. li ma Macky mënul baal bokk na ci tibb tànk li ma Macky mënul baal bokk na ci tiiñal Macky candidat rokale yi lee di xamle ne duñu toog di leen seetaan dañ koy xeex fu mbaxane doon benn Bougane Aminta Malick benn ku nekk na nga wuti sa avocat wuti sa huissier recours individuel ba mu doon 60 fois parmi les recalés. mooy nag mu mel nii rekk proposition bile ñëpp àndu ci. jàmbaar man recours man depuis 2019 maa ngi recours. Bougane Gueye di xamle ne dina def ab caravane nationale woo xam ne da koy duppe dogal benno di initiative nag woo xam ne candidat recalé yi yëpp ngir ñu jàkkaarloo xeex candidat Benno Bokk Yaakaar ci jongante présidentielle gatub 2024